suñu tuddee imam suñu nijaay sëriñ Mansour Diop alxaji dut sàll bi di sunu mag yóbbaale nañu sëñ Moustapha yóbbaale nañ maam Ousmane ak mbooleem famille kër si di xaaj Malik yépp nuyu sunu maam yi fi teew ak sunu bàjjen yi sunu tante yi sunu jigéen yu baax ji nuyu sunu frère yi nuyu sunu jaam bu baax bii di Pape Khalifa Ndiaye ndokkeel waa asfiya yi ci bés bu màgg bii nga xam ni benn xeer bu jam ñaari picc la di bésu sëriñ Babacar si radiallahu bu mu bokkul ak kenn dama jóg bay génn ki ci sama kër dogale ma ni ma ñaanalal senegaal ndax mu gañe ma ni ko fii ma taxaw coupe du monde Sénégal France fi laa taxawoon sama téléphone sonné benn waay ni ma ñaanalal Sénégal ndax mu gañe ma ne ko dénk naa ko Sëriñ Babacar Si ma ne ko fii ma taxaw fii nga ma ko waxe ñaataa des ci match bi mu xool ci télévision bi ni ma ñetti minute ma ne ko sëñ Babacar a gën a gaaw ñetti minute فما يشفى إلا المسافر فما يشفى لا ينال بينما يا يوم ci Babacar ku ci sàggar ñu dem bala yi bu nu sàggar ci Babacar ku ci sopp sëñ Babacar loxoy taxaw jogal taxaw ku ci sopp sëñ Babacar jogal taxaw jogal jogal ku jug taxaw yamal xiyam doo fa taxaw doo fa ay rëy kaala rëyub mën a guddal sikkim caqal taxulaa mel ni say di mbay bu mu sàgg mbay ku ci sàggat buur yàlla xam ne kenn amu ko bu leen xuloo te bu leen nga di indi naqar ma ni ko sëriñ Babacar a gën a gaaw ñetti minute billahi wal kitaabi wallahi alazim ma jàng fatiha ñetti salaatul fatiha ni ko sëriñ Babacar pour ñu yëg ni bëgg nga ci sa bés bi ñu lay defal na Sénégal gagné wallahi alazim damay daaneel sama kàddu wëlbatiku di jël sama écharpe pour dégg caax yi tàkk xale bi daw ñëw yuuxu song ma ma ni ko lu mu ni ma Sénégal dugal na ma ni ko kon gagné na moo tax bi gaa ñi yëngatoo gaa ñu jóg ma ni dëgg la parce que yonent bi laysa bi karimin man lam yuhishu zikrul habib képp ku ñu tudd sa waay te yënguwoo rek teddoo moo tax waa ji daf ma waxoon ni ma bala ngaa xam ni sëriñ Babacar wàllu yu dëgg la ma nga ca góor yàlla ya ma ne ko waaw mu ni ma yëg nga ni buy sol grand bu bam ba garaam bi fël mbaxane mi ma ne ko waaw mu ni ma mbaxane mi bu jàngaloo sax day dellu si waat masula defar mbaxane moom sëriñ Babacar Si xaw ma yéen a may dégg wala déet ma ni sëriñ Babacar bu solee mbaxaneem di sol garaam bu bam wala mu koy summi ma ni bu koy summi mbaxane mi bu jàngee sax dana dellu si xam na fi muy tegu nitu yàlla yi ci mbaxane lañ leen di xàmmee ci bopp maa ngi koy nettali dafa am benn waay bu ma wax ni ma bala ngaa xam ni sëriñ Babacar bokk ci ma ni ko waaw mu ni ma dangay xool bépp sëriñ boo gis muy sol mbaxane ma ni ko waaw mu ni ma mbaxane mi def nii ma ni ko waaw mu ni ma boo koy tëggal muy fecc ma ni ko nga ni mu ne ma bu melee nii nag ay waxam wóorul lum la wax xoolaat ko ma ni ko waaw mu ni ma waaye su defee nii ma ni mu ni ma lu mu jekku mu dem ma ni ko lu tax mu ni ma mbaxane dafay mel ni bu sëriñ Babacar ci digg boppam tekk dekk moom la Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour di wax ne listiqaama boo ko bëggee xam demal ci sëriñ Babacar si listiqaama ma ni ko papa lan mooy listiqaama mu ni ma borom listiqaama du ratal du xalab du gësëm du xayli dafay ñor tàbbi mu mel ni kooku lañu tàntal ci réewam bii su fekkee fulla rek ngay wut ci sëriñ boo yemee ci sëriñ Babacar Si di nga teral bu fekkee ngor rek ngay wut ci sëriñ boo yemee ci sëriñ Babacar di nga teral bu fekkee dëggu ngay wut ci sëñ boo yemee ci sëñ Babacar di nga teeral diine ju raxul dara boo yemee ci sëñ Babacar di nga teeral jekk damay wax ni moo dàqoon na si gënoon na civilisé dàq gën a rafet te buy dox du sigi di gis ñépp te kenn du ko gis sëñ Babacar si waaw borom bonekaare bu rafet bii ak sacré yàlla bu jekk bii xoolal ñax-ñax yi ci sikkin bi naa ni Sénégal bërki démb jamono yële damay jékki-jékki ma ni xam nga Sénégal seen phénomène dañuy jékki-jékki rek génn benn benn baat dafa am jamono koo dajal mu naan la diwoo yor diwoo ko yor diwoo ko yor koo rek mu tàpp la la yaa yor xam nga yàlla kenn du jëflanteeg moom ci loolu yaa ko yor mu téye yëfam di xaar yëf yi dëgër jëkkër amatul gaa yi fëggatuñu buntu jigéen yi passeport yi visa dootuñ ko ci xaalis amul dëkk bi wow koggu làmp yi fay yëf yi ñàkk ñu naan dëkk bi dëkk bi parce que dañ koo jiñ ku ko yorul ñu ko doon jiñ kenn yoru ko ci waaye doomu aadama bu jaaxlee dootul xam fu mu jëm dootul xam lu muy wax xam nga ban phénomène la ñu génnewaat bi ñuy jaaxle mooy loolu koo dajeel mu la mooy loolu parce que xamatu xamatuñ lu muy wax moo ko yor la doon wax dem nañ ba xam ni kañ ko di juñ yoru ko léegi koo xam la mooy loolu de ma ni moo gën a wóor nag ñi ngi ndokkeel sëriñ mustafaa ci bisam bii di ko ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla defal ndam bu ëpp lu mu ci masa am di ñaanal waa asfiya yi di ñaanal pap xalifa mii ci xadara maamam bii dafa nuyu sa mbàppa ci gàmmu gi mu ni ko naka daara ja mu ni ko ma nga fa mu ni ko waxoon naa la ni la lépp looy wut boo ko amewul ci sa daara yi maam ji doo ko amee fenn sa richesse sa koom-koom mi ngi ci daara ji ci xadara bi kon ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla jàppale ko di ñaan yàlla ku fi ñëw yal yàlla faj sa aajo sëriñ bi fii ñi nga fi gis ñépp koo ci gis ba ci man li nga yenu li nga yanu wallahi bu ñu ko doon diri fii xaju fi waaye ci seen barke ak seen barke maam dama xool léegi photo bii tubaab bii di fon Serigne Babacar Sy muy Vincent Auriol 1951 la takkal garaat bii Serigne Babacar Sy Légion d'honneur sam papa ngi naan keroog ba ñu génnee ci yëfe dama dugg rek nee na sëriñ Aline Gueye ni ko waa yéen ana seen xare xay yéen a fi daan dàq way tey ñu dappal seen bay garat ngeen toog di noppi nee na maa ngi sat sama xalime waaw naan ko inna lati sayidi xulitta min karamin qarrat biha ayunul ahbabi kal baradi awlaakaha daxwatan góor nóoru mumtasilan li izni président jahran bila fanadi waaw muy daaliye bu mag keroog booba la ko la ko gouverneur naan ko eh, France taxaw nañu wax ni naa la laaj loo bëgg ñu defal la mu ni li ma bëgg Seydi Hadj Malick ko am France amu ko mu ni ko ci jataay bii la ñu wax mu ni ko jataay bii li ma fi bëgg mooy ngeen teel maa yeewi parce que tàkkusaan a ngi jot te bu yàlla wootee ma fàtte leen kon ci barkeem yàlla yàlla faj aajo yëpp am sëriñ bu mel ni sëriñ Babacar si xam nga borom ibnu Achir ma nga naan yasxabu cheikhan aarif masalik yaqiihi fi tariqihi lmahalik yuusilu labda ila mawlaahu bare na waaye mënul paase am sëriñ bu mel ni sëriñ Babacar si muy sa model di sa royuwaay mu bàyyi fi juróom yi mu fi bàyyi di sunu diine sunu tariq sunu daayira sunu mécc sunu yoonu teewaan def ni loxoom yu tedd yi moom sëriñ Babacar si ne xawma ci dara de waaye ku ci sax dogg naa man Babacar ni ëllëg di nga gis Malick te ku ma ni danga nga gis Malick war nga ko gëm ku ma ni doo gis Malick war ngaa jàq ndax ka nga wóolu ka mu wóolu mooma te man la Malick ku wóolu kon noo ngi dénk sunu bopp di leen ko dénk di leen fàttali di leen fàttali sunu bopp di ko fàttali sunu bopp moo di nit soo koy roy danga koy roy ci lépp bés bi jot ngeen sañse ñëw fees dell ci tànt bi ngir yàlla ak sëriñ Babacar si muuru defaru màggal bés bi dem mu yem fa baaxul nit dafay niru ko mu am nañu niru sëriñ Babacar ci sunu jëmm ak sunu roox nañ ko niru ci suñu jëmm fexe ba fu ñu toll muy feeñ ci sunu yaram ba ku ñu gis xam ni kii njabootu sëriñ Babacar la njabootu sëriñ Babacar bañ koy wax nag du ko sant si rek moo tax wala ka ca ko ndax sëriñ Babacar dafa waxoon ni ëtt bii ëttu yàlla la sant Seydi Xaj Malik ko waxoon moo ni sama kër gi santul si yàlla la sant ku yàlla ñor rek ci nga bokk sëriñ si toog ca Tiwaawan sëriñ Aline Gueye sëriñ Chaybatu mag ñi baax ñi ñëw sekk ku ñëw ni ko dañoo jaaxle mu ni lu xew mu ni ko si sa baay dafa dem ñu wét dëgg la yaa ngi ñuy wétali waaye dañoo tiit lu leen tax a tiit mu ni ko dañoo xamul nii ñu jëflanteek yow di toog ak yow nii daan ko toog ak sa baay ey Babacar ndax bu ëllëgee dinañ ko defati xam nga lu ko sëñ Babacar wax daf ni ko Alioune yëguloo ni catholique yi nekk Tivaouane ñu suul leen fii ba léegi kenn laajagu leen dara ngir rus alaaji Malick waaw Seydi Hadj Malick benn yéeféer bu tëdd Tiwaawan benn malaaka dumawu la laaju la xamul ci loo nekk ak loo ma sa def ngir rus Seydi xaaj Malick kon jullit du mat a wax li ñuy gëmee sëriñ Babacar topp ko nag mooy diine ji nañ ko bàyyi xel réew mi toj na po mi bare na dëkk bi yàqu na jikko yi yàqu na waaye bu ñu ci bokkee ca ña koy defar mën na am yàqu-yàqu ya inna alxasanaati yi sayiaati lay doon kon yàlla nañu yàlla defal sutura defal leen ko noo ngi jéggalu sëñ Moustapha lu mel nii dafa xew ca caaro yi euh, sëriñ bi waxoon ni nañu fa dem yéwénal la leen ko ñëw fii bokk ak yéen bés bi xam ni lu ngeen nekk nooga nga ca biir waxuma sax daayira bi waaye Pape xalifa mii dafay sunu rakk di sunu xarit ñun ñëpp jàppewuñu mbokk ta sëriñ la ñu ku mu gis ci yow boo ko magee bu la magee bu lay nuyu da nga yëg ni taalibe bu mat sëkk moo lay nuyu kon kii rek jar na lu mu dugg ñu dugg ci ak moom rawatina nag sama jarbaat bi nga xam ni moo jàkkaarlu yéen nar def waxtaan wi muy Mouhamadul Moustapha di sama jarbaat di sama rak di sama xarit dama koy wax ni ko yow Seydi Hadj Malick boole wuñu bu doon ak El Hadj Malick itam maag yow ca Abdoulaye Cheikh ak Tabara Cheikh foofu dañ fa bokk ñaari maam yu bokk ndey ak baay muy sama xarit di sama lépp kon nu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla def barke. yal na yàlla wutuñu ci yéen fayal nu leen mbooleem ku ci def ki tax nga def ko gis na ko muy sëriñ Babacar yal na la wuutu fayal la boppam tabaarakallaahu lii rek lañ ci doon sànni ñi ngi ziar di jéggalu di ñaan yàlla yàlla ñu fi dajawaat ay at way jur yi fekke ko kenn bañ ko wuute ilal abad insha allah